asalaamaaleykum chers internautes bu Dakar Midi TV ñu ngi am mbégte ak kontante bu baax a baax a baax si seen beneen numéro seen émission Kër Ndaanaan Kër Ndaanaan nag tey dafa dalal ndaanaan Coullier Fadri kenn dootu ko présenté ti mu nekk doomu ndar doomu ndar nag ñu xamee ko ci jàngu alxuraan xamee ko ci def lu baax xamee ko ci yiw ak maandute ba tax na tey dama jël ànd ak sama gars yi ñu ñëw fii seet si ndaanaan koo xam ne ñu koy wax Malick Diabou Seck dama koy bàyyi mu présenté wu moom Malick Malick Diaw Seck euh, bàyyeekoo Saint-Louis du Sénégal la plus belle ville du monde <laughs> fa nga xamante ni Bamba fa lañu bokk <laughs> waaw Saint-Louis wax dëgg yàlla may seen doom mais nag euh, bu may présenté wu musicalement di doomu Sénégal di doomu Afrique di doomu àdduna ndax musique moomu jur musique ma moom te musique ki di musique euh, amul frontière voilà Malick Diaw Seck nag tàmbali carrière foofu ca Ndar ci wàllum école yi ci wàllum euh, euh, maanaam ouverture foyer yi ASC culturel euh, voilà tàmbalee foofu forgé wu bu baax ah ñu jël ma daal di may teg ci sama loxo waajur Abdou Abdou Abdou hmm, Abdou Kité Seck Abdou Gité kenn dootu ko présenté ci réew mi ndaanaan ku lu fàddalin ah waaw wax dëgg yàlla ba ñu demee ba 2009 voilà ci la Malick Diabou nag ibi yoonam moom Ah, defagum benn album léegi-léegi may waxtaan ak gars yi ne sant yàlla war nañu ndax cooli cooli benn album ma fi génnagum rek ak euh, ñaari single u ñett ah, am nag bagage bu gën a diis nag bu ñuy waajal nag boobu nag moom moo war a génn nag incha allah ci fan yëpp fan yi néew incha d' accord ba tax na kër ndaanaan la wax te ndaanaan dañ koo xamu dañ kaa xamee ci def lu baax mbaan ndaanaan kenn doo ko wax naan ko jaar fii ngay jaar. Hmm. ba tax na dama naan la bëreet rek nga am foo jaaral man. mbokkum cher zintono du ñuy seetaan pour ñu dund ak Malick euh, ndeysaan Dakar mi di du ngeen fekkee fi ñu may néewale lu ma xewle yéen a jiitu kuy doora man kuy saaga momi baali momi abaaso momi baali askan wi du ngeen fekke fi ñu may néewale lu ma xewle yéen a jiitu kuy doora man kuy saaga momi baali momi abaaso momi baali waa be wangi noonu ñaari tali ngb wangi noonu Scat Urbam fi lay yeewoo yeewaay Grand aw ma kudul yéen fa yaay juddoo fii lay naati ah kon nag Bamba nuyoo naa loolu internautes yi. <laughs> macha allah ba tey seen émission Kër Ndaanaan mhm. tey dafa am loo xam ne tey dañ koo gis euh, mu doon benn complicité xaw ma complicité laa ko mën a tuddee xaw lan laa ko mën a tuddee ñu gis la yow ak euh, Thione def ngeen vidéo euh, def ngeen dio di mois mhm. gis nañ tamit def nga benn benn benn kii bu nice clip. Mhm. génn nga tamit album bu ñuy wax bataaxal. ànd nga tamit ak euh, ki ñuy wax euh, Fata le mm-hmm. rappeur donc yow ban complicité bu nga am ñoom en tant que euh, frère ci ñoom wala da ngaa taamu ni ñoom sa sa mbokk lañ wala doomu ndar ngeen wala lan la exactement. laaj bu am solo nga laaj parce que musique yaatal la te musique sensation la donc lépp loo xamante ni rek ni buñ ko defee mu neex soppe yi war nañ ko mën a def léegi dafa mel na nga fekkee sama benn waxtaan ma ni ndaanaan dafa war di may nopp moroomu ndaanaanam ndax dina ko dolli loolu dafa am solo la ngay déglu sa moroomu ndaanaan jàng ci moom wala nga séq moom ngeen ànd di liggéey ngeen jokkalante et su boobaa nag day bari doole parce que musique moo bindoo noonu musique da ngay indi ma indi keneen indi ñu dajale ko mu joxe lu neex li jëm ci askan wi parce que benn objectif la euh, Thione Seck di sama baay moo koy remercier de passage du ma tàyyi ci di ko jaajëfal vraiment bi muy bi muy bi ma ko ci woolu mu ma ciy wuy si xamuloon kuy Malick Diabou xamuloon kuy Malick Diabou mais mu fekk si musique la wuy si wuy si na doom wuy si na musique euh, wuy si na tamit soppeem ndax soppeem la te bi may tàmbalee musique dama doon rêvé dama doon rêvé bi ma koy rêvé bi may rêvé def musique dama doon ñaan yàlla sama album bu njëkk ma partagé ko ak moom rêve boobu suñu borom dimbali ma ci noonee la demee exactement Fata morceau ba ngay wax Fata di un frère Saint-Louisien mu nekk ci wàllum rab donc bi ñu defee benn musique ñu soxla si beneen touche ci wàllum voix benn rappeur ma ne pour pourquoi pas Fata ñoo dëkk Ndar moo woolu ko ci mu gën ma bëgg morceau bi def ci lu rafet et je pense que nit ñi apprécier ko bu baax a baax a baax. donc loolu moom vraiment voilà musique laa ci musique laa ci jaajëfal bu baax ndax loolu ñu doon def yëpp musique doo nga tax. ba tax na dama naan la tegal foofu sa baaraan mu ñëw dafa am question boo xam ne Cheikh Zenta Dodi yaa ngi ñu koy laaj saa su nekk mu nekk que ni yow heure boo woyee rek même ku la gisut sax en dafay jàpp ni Abdou Guité mooy woy <laughs> mu doon sa mbokkum deret doon sa lépp dama bëgg nga leeral ko Cheikh Zenta Dodi ñuy seetaan. waaw benn deret la muy sama baay. ndax euh, ki jur Abdou Guité ak ki jur sama papa ñoo bokk ndey ak baay maanaam moom rakk la ci sama waajur bu góor sama papa ak Abdou Guité seen ñaari papa yi bokk ndey ak baay donc c'est le sang ba pare man bi may tàmbali ñu jël ma dénk ma Abdou Guité teg ma ci loxoom ma jàng métier mi donc euh, quand je parle du chanteur aussi quand je parle du chanteur mu nekk référence ci musique sénégalaise nekk ndaanaan bu kenn dul werante musique sénégalaise dafa soxla ñu mel noonu. ba tax na yaa ngi koy suivre bu baax a baax a baax te dama bëgg ci ay wéyam rek nga may ma ci benn rek boo xam ne heure boo ko wéyee rek sa xol dafay tooy parce que maanaam d'après ni nga waxee rek sa idole la. waaw daanaka way bindee ma maas. waaw <laughs> nga may ñi <laughs> ah, benn boo xam ne ci Abdou Guité nga koy copier. non ah dama dama jël ci moom benn wayam ni dëkkaale dang noy faale ni dëkkaale dang koy faale ni dëkkaale kenn du ko def noonu non dëkkaale dang koy faale ah je pense que loolu moom nekk na ci morceau bu ma neexoon loolu boo xamante ne buñ doon joué ci kaw scène bi di ko def en live euh, daan naa ko yëg tamit bu baax a baax a baax moom daanaka morceau bi yëpp laa yëg sax ndax ndaanaan la <laughs> naan la lu kenn du werante ci réew mi vraiment. tey nee naa la lépp lu la réeroon ci Malick Diabou Seck man Bamba Bourgeois maa la koy leeralal nañ ànd ak ci sama équipe bu doy waar bii Malick euh, gis nañ ne sa carrière musicale dafa am côté boo xam ne euh, dafa xaw a baissé wu tuuti mm. parce que gis nañ ni mm. saa su nekk euh, gisuñu la ngay yëngu ci ay ay ay kii yu bari ba tax na dama lay laajaat aussi ba xam Saint-Louis bi nga dëkk yaa ngi fay tëgg ay soirée ay concert affaire yooyu noonu lan moo tax. danga nga manque staff wala sa groupe ñoo liggéeyul wala yow ci boppam yaa liggéeyul. Euh, Bamba dinaa la sawar a dinaa la sawar a tontu nag ma bëgg internet yi ñu may ma nopp tamit gis nga musique sénégalaise fi mu toll nii tembe tembe tembe dama lay jox exemple ñu ngi mel ni ci réew moo xamante ni suñu xaalis ibbeekuwul ci ñun la yem suñu dëkk day tënk économie réew mi du course de vitesse. ah Malick Diabou Seck comme ni nga ko waxee lépp lu may génne ak lu mu mën a doon dinañ ci xalaat bu baax a baax a baax rëddal ko ay orientation Malick Diabou Seck ñaata album nga fi génneegum macha allah benn ñetti single maximum mooy Malick Diabou Seck gi xeeb nañ ko nag duñ bàkkow ñu ko waaye mooy Malick Diabou Seck gi gis nañ fi ñu fi génnee dix album seen i tour di soog a dem kon nag sant nañ yàlla ba macha allah li ñuy def. ñu ngi koy ñu ngi ciy góorgóorlu ba teg ko ci lu dëgër loo xamante ne ay caaxaan du ko fi jële ah may faral di wax naan te nag di ko conseiller képp koo xamante ni acteur culturel nga musique sénégalaise dafa soxla ñoom ay référence parce que nag man sama bët bi feneen laa ko teg tey sant yàlla on vient de m'appeler pour euh, la ma journaliste bi doon wax bërki démb ne ma macha allah ay waykat a ngi fi ñu amuñu mu amuñu amuñu war a wër war a wër Euh, Amérique macha allah Malick Diaw benn benn benn album boobee moom moo fas yéene yóbbu ci biir avril bi Amérique du Sud bi yëpp incha allah rabbi hmm? kon nag loolu je pense que ni liggéey bu dëgër liggéey bu ànd ak fulla te ka ma yóbbu xaw ma ko du xarito du du relation du dara su ñëwoon fii sama buntu kër xaw ma ko c'est juste liggéey bu wóor lañ ko teg muy benn beneen bi ci tegu nag man sama musique dama ci teg ci ay référence ku ci mel ni Baaba Maal ku ci mel ni Youssou Ndour ku ci mel ni Thione Ballago ku ci mel ni ainsi de suite Cheikh Lo et j'en passe ay références a ngi fi ñoo xamante ni seeni musique bëtt na ay frontières. man barki Dembo Ndiaye damay seetaan benn film ay américain mais di seetaan film bi ba mu jeex daj ci Baaba Maal di def voix off réflexion bi ma njëkk am mooy Amérique na mu sore ay américain di def seeni film ma dégg ci sénégalais. loolu man loolu laay loolu laay roy loolu laay naw ci musique sénégalaise te foofu laa séntu musique sénégalaise voyez donc nag am na ci loo xamante tey Omar Pène day dem ba Japon musicalement di jouer japonais xamul wolof bi Omar Pène di laax et macha allah euh, ñu war ko mën a bëgg Cheikh Lo récemment il a eu des ba ci Viviane ma leen rendre hommage di leen ñaax di leen ci encourager parce que ñoom ñooy te flambeau bi weng am na musique bi fu muy tego ñun ñëpp la yàqal ku la woo Europe mhm. benn salle lay jël indi fa ay sénégalais ñu ñëw xumbal ko non ci non tu fais pas une tournée kañ la fi nga fi gëj a dégg sénégalais bu fi def euh, maison de production ci extérieur woo ko mais je vais vous dire mhm. euh, di conseiller waale samay nawle di ko jiite ci sama bopp gis nga musicien sénégalais yi nañu moytu fainéantisme baaxul bu ñu tayal internet léegi yomb na. na ñuy dugg ci site ci link yi di xool festival yi mag yi am ci àdduna bi dañ leen ko tere. dañ leen ko mais terew ñu leen ko. mais nag festival yooyu du n'importe quelle musique fay dem aussi bu ñu nax suñu bopp am na loo xamante ni foog ñuy mën a toog am courage gu toll ni di ko waxante suñu biir. festival yooyu noonu nga xamante ni tey woykat yii fi ne toog ci ay xéewal toog ci ay mbir yu neex yu bakkane yooyu leen ko moya du yenn mi du yenn yi fi caaxaan yi les séries ne se vendent les séries ne se vendent plus soirée yi fayetul dara mais musique sénégalaise foog ñu am courage jàkkaarloog suñu biir xam ni suñu problème fii la nekk ñu waxante ko donc nag euh, man su ma gisee ku koy suñu papa Youssou Ndour macha allah man heure bu génnee heure bu nekkee ci musique ma gën ko supporter gën a bëgg parce que au moins foog ñu teg musique ci raay yi mu wuyoo musique norme internationaux mu jël ko waaye ñu mën a dem ci festival yu mag yi tey képp ku ci dem. mu la nouvelle génération képp ku ma ci gis ngay dem ci yenn yu mag yeeg yooyu pour man suñu sati suñu suñu suñu suñu victoire la à la musique sénégalaise à la culture africaine de manière générale man foofu lay xaar bi tey da ngay dugg ci ay link ay festival yu mag a mag a mag a mag a mag da nga fay gis waykat boo xamante ni des sénégalais tu te poses la question kii mooy kan tey yow boo toogoon nag moom est-ce que ko xam. c'est chaque jour ma dugg ci link yoo xamante ni je vois un chanteur sénégalais un artiste boo xamante ne boo koy noonu Sénégal tey ñu jaawalee ko jaay ko jën et pourtant booboy quatrième ou cinquième participation ci festival am mais ñooñu ñooy représenté musique sénégalaise je suis désolé waaye donc nag tey Malick Diabou Seck euh, wax dëgg yàlla euh, macha allah euh, li ñu am duñ ne mooy li ñu bëgg on est au waaye nag ñi ngi ci yoonu représenter dignement la culture sénégalaise et d'une manière générale africaine Eh, lépp lu ñuy def it ñu ngi góorlu ba teg ko ci yoon bi nga xamante ni fu mu tegu caaxaan du ko fa jëlee te borom xam-xam yu mel ni yeen borom rechercher yu mel ni yéen ah bu ngeen ko tijjee it fekk fa matière bu ngeen mën a waxtaane waaye aussi gis nañ aussi que ni yow euh, yaa ngi toj voies yi Sénégal yi par exemple Dakar fii ku ci lu ci mel ni ay bulu saxo yaa ngi fay dur ay soirées yu doy waar xale yu jigéen dañ fay fees dell. am na tamit leneen loo xam ne dañ koo constaté mu nekk soo demee Saint-Louis est-ce que yaa ngi fay tëgg ay soirée yo comme ni ngay tëggee fii nii parce que gisuñ loolu euh, ni nga waroon tëggee soirée yi Saint-Louis Dakar la gën a manifesté wu quoi. Euh, am na loo ma laaj sànq ci Saint-Louis sax je pense que ni tontu naa parce que musique problème mu musique bi moom dafa nekk loo xamante ni j'y tiens énormément moo tax xëy na mu emporté bu ba yóbbuwaale laaj boobu mais Saint-Louis le 15 décembre bi passé laa fa def benn événement. boo xamante ni en tant que fils de Saint-Louis man maa jël sama initiative ne destination Saint-Louis fas yéene jël lu ma am ak képp ku ma am te ñu fas yéene ko def de manière annuelle at mu jot 15 décembre wala euh, euh, décembre deuxième euh, week bi ci tegu ma jël sama la ma am yóbbu ko ndar di ci sant autorité saint-louisienne yépp nag ndax gis naa seen taxawaay ci édition bi ñu jóge et allah ma xam am retour ne bég nañ te loolu laa ci bëggoon décembre Saint-Louis bañ a géey xaaruma ci kenn dem naa def ko waaye sant yàlla yàlla may nañu ay autorités yu am nopp yu baax yoo xamante ni bi ma sooboo rek fekk si nañ ma may ma doole ba fa ma demoon am nañ fandam am nañ fandam Saint-Louisiens yi bég nañ Saint-Louis seen xol neex na décembre béggee nañ ko bu baax a baax a baax par rapport mu ciy remercier bu baax a baax parce que daga euh, melting pot la dañ fi dajee waaye nag niñ fi dajee non dañoo téye Malick Diabou bëgg nañ ko lool Malick jabu sincèrement il ne se plaint pas namul dara mhm. heure bu yëkkatee loxoom gars yi yëkkati seen beneen loxo ne doo ci wéet mhm. daañ ci ànd ak yow ma leen ci sant awma seen fay te suñuy rencontre suñuy retrouvailles macha allah du rek ñëw way fecc dem déedéet euh, leçon ya fay génn am na solo public bu Malick Diabou macha allah ñu ràññee leen lool ci yiw ci xam seen bopp xam seen valeur ñu koy waxtaanante et dans les soirées et en dehors des soirées man sama public amuñu benn amuñu benn barrière man ak ñoom. foofu lay ñëw si on se parle on communique man ak ñoom voilà à travers outils yu ñu jox pour ñu mën a wax ak ñoom maa ngi koy utiliser muy guddi muy bëccëg yàlla xam na ni sama téléphone amul limite ku ma ci woo interpellé ma. man Malick Diabou Seck maa lay tontu sama bopp waxtaan seq ko et booy xool lu rafet la. Mm-hmm. lu rafet la soirée yi ñoom ñoo koy organiser man jàpp ñoom ñoo koy organiser le plus gros du travail ñoom ñoo koy def vraiment chapeau à ce à ce charmant public amu seen fay. d'accord gis tamit euh, nga juddu euh, ci famille famille ndaanaan mm-hmm. dama naan sax euh, héritage la ci yow. Mm-hmm. parce que kenn dootu la présenter ti nag international ga Euh, say musique nga doon doomu géwél en tant que góom kii doomu géwél mm-hmm. say musique waroon xumb lool mm-hmm. maanaam bëri woon ay bruit te yow gis nañu sa musique dafay dund bruit bi ça nous amène où musique pour ñu dégg ko la euh, pour fecc daañu fecc ca biir waaye musique kaddu yi bu ñuy négliger le contenu le contenu est très important le contenu est très important euh, su démb doon tey mag ñi ñu téewaat bu baax a baax a baax fa ñu téewoon parce que nag je me dis que ba ñu toppee rythme ba tey ca lañ gëj dem festival tamag gi boo ñëwee soirée Malick Diabou Seck bi yoboo kuy ñëw roofal say mouchoir say poche tamag yi ngi fa dina neex sabar gaa ngi fa dinañu rek mais nag je vais vous dire depuis que la musique sénégalaise percussion yi ñoo nekk nag léegi en leader ba tey musique sénégalaise ñu wax ko am na problème tey il y a des chanteurs Alioune Mbaye day jouer nga dem fekk fa dix nit c'est dommage pour la musique sénégalaise Abdou Guité Seck waxi noppi Ismaël Lo foo koy dégg Baba Maal foo koy dégg ah bu njëkkaan da nga daan dégg ñun public ñun public ñuy lim ay instrumentistes ngir ci yàlla ji Cheikh Tidiane Tall ay ñoom Bob Sène ay ñoom Jimi mbay Pape Omar Ngom gars yi ñi ngi fi macha allah ay ñoom euh, Bassis Omar Penba Debel Diop ah ay ñoom batteuru Omar Penba ah Lapa Diagne kan ngay déggati léegi mun la instrumentiste sàngam fërërëw ga rek ka <laughs> yar fërërëw ga rek <laughs> j'ai beaucoup de respect pour mes mais attends léegi ku judd ci kër xale bu ndaw li ngay njëkk jàng nga wax lan yuusa fërërëw xaw ma raw mais ba kay non dañu war a gis na musique facteur de développement la et de communication da nga daan géegi benn mélomane et je suis de la nouvelle génération tey tey tey dinaa wax sama at je suis de 83 je suis de 83 ba lañ naan kii euh, inse damay jëlee ci mag di ko booleeg tey nag mais di ko agencé pour que ma mën a téye li fi mag ñi bàyyi woon tamit ci musique contenu mais musicalement aussi nopp déglukat yi dañ ko war a defar ay nopp bu ñu koy defar ci ay <laughs> moo tax nag wax dëgg yàlla effectivement pour tontu sa laaj à chaque fois dinaay faral di def une musique réfléchie di waxtaan parce que waxtaan bi def ci am solo. waaw loolu dafay firndeel ni gis nañ sa musique yu bari euh, da ngay joxe ay leçons lu ci mel ne euh, Noreyni bi euh, nga bàkk ci suñu sang boobu noonu macha allah. ñu jógewaat ci loolu nga defaat euh, rendi bu dul paaka loolu mu doon loo xam ne yaa ngi ci rendre hommage femmes victimes yi de violence dans leur foyer euh, en chaque fois dañu lay gis que ni euh, maanaam leçon boobu noonu exactement lan lay def yow c'est style la wala da ngay euh, euh, kii da ngay basé wu si ñooñu pour mën leen kii yàlla parce que olof Ndiaye nee na euh, woy bu dul. bu dégleewul xamlewul coon coon bàllaago. waaw noonu la demee noonu la demee ba tax na loolu dama dama bëgg nga expliquer ñu ko ak internet yu ñuy seetaan. voilà en fait loolu dafa am solo c'est ça ne veut pas dire que ne Malick Diabou nag donneur de leçon la damay bëggee nag maa ngi waaj a woy sax mbëggeel ma jox la ko exclusivité moo bi reetaan la tudd. damaa bëgg kii ma nekkal di tëdd sama dënn fii ah, vraiment di toog sama kaw di foog di bëreeg man di retaan parce que néew ñu fi rek di woy ay stressant tu dañuy béggee ba mu neex mais fi ngay waxee noonu inceste laa njëkkee inceste mooy bàyyi di sàkk doom ji mu jur man ak Thione ba ñuy ànd morceau ba ñu way ma ca loolee lay wax ah, ñu ne déetawaay bataaxal bataaxal damay waxal ndaw yi nga xamante ne dañ leen jàppee les enfants de la rue ça n'existe pas même euh, man euh, boobu façon ñu leen di woowee day mel ni doo mbedd mi leen jur mbedd mi jurul kenn de mbedd mi sànniwul kenn ci boppam hmm, seen i kilifaa fay jël sànni fa nit <laughs> ñu dajee fa ñu li woowee leen les enfants de la rue ku leen ko teg doom ju nga sànni ca mbedd ma ah waaw bu seddaay ñëwee du sàngu amul lu mu sàngoo du sàcc sàngu dafa ra ku xiif doo lekk boo lekkul dee est-ce que ñoom donc ils sont fautifs dëgg la naam je les encourage pas mais tamit ay waajur leen fa yóbbu ay responsable leen fa yóbbu hmm? l'école bi lan mooy lan lañ ko fay dee pour muy dàqee mais xel mi mën na bañ a neex mu redoublé deux fois système scolaire bi dégg naa boo redoublé deux fois ñu dàq la école du pour dàqee fii baaxul orienté leen ko feneen donc politique état dafa war a dafa war a xool lu muy téye xale bi xale bi tamit. jur yi am nañ wareef ci moom ah, tàggat ko donc pour man euh, musique du rek pour fo waaye jaamu yàllaa nga ca waxalal yeeteel yeddeel béggeel tamit ah. waaye moo tax moom lay sànq rek contenu buñ koy négliger parce que at ba tax na woykat ba wala théâtre kat ba wala ku mu mën a doon war na xoolaat boppam euh, pour li ngay wax léegi ak li ma lay wax ne la lépp lu ñuy liggéey ñu ngi koy saytu rien que pour ce single man Malick Diabou Seck def naa ci lu ma deful ci album maa ngi ci waxtaan ak télévision bu mag ci réew mi mhm. boo xamante ni campagne de sensibilisation bu mag lay àndal site internet presse en ligne bi ñoom laa ko dijjee mhm. à travers vous Dakar Midi ma leen di di leen euh, encourager ñoom IGFM yeneen site mais maanaam presse en ligne bi mhm. yéen laa ko sargale pour wane importance bi ngeen am ci réew mi éducation ñëpp la war borom télé ba borom rajo ba waaye surtout yéen presse en ligne bi ku xëy ordinateur am lay njëkk xëcc wala appareil lay njëkk xëcc ibbi internet kon nag je pense que ni lu waaye di jëflante wala ku bëgg yar wala ku bëgg jaay ak na jaar ci yéen donc une manière de reconnaître vraiment seen importance ci liggéey bi ba tax na euh, liggéey boobu daal xam naa ne woo naa leen ci te xam naa ne da ngeen ma ci sawar a wuy si. incha allah xeex ñaawteef ci néegu sëy mhm. ñëpp la war. jàmm ci réew ma ngay tàmbali ca biir néegu sëy mhm. ndax jàmm ja ca biir néegu sëy muy dugg ci saal bi génn ca mbedd ma war ci quartier bi dugg ci région bi wasaro ci Sénégal yaay kon dama bëgg nga bay ma tuuti rek ci jàmm ni bu dee yow yaay ki ma nararamu sama baay su ma faatoo bul ma yóbbu jannatu yaay nar fi sëy nii ba sëy fi ni yàlla bum fi baax ñeneen ñu naqar di rey ni amu waay araam na gis li rey rey dawoo ko moom la bàyyi su ma dëkkeeg yow nii ci kër gi yoonu lislaam daal di may war yaay nar fi sëy nii ba seey fi ni yàlla bum fi baax ñeneen ñu naqar di rey mbaadu dama war a kër gi dem ndax bañ a fekke xel xalaatul wàcc fi yaay ci anam man maa ngi teew ñu jàpp sama yaay di ko toroxal. Mm-hmm. di football di saaka di bule. Mm-hmm. ak sama teewaay waaye waaye suñ ma gisatul xanaa dañ koy rendi mu de <laughs> doy nan laa war a def dama war a song sama bàyyi dóor ko ma nit lislaam tere na ko. Mm-hmm. benn diine nangu ko waaye léegi nu may def hmm? ndax kanam gi nga xooloon ne ko yow laa bëgg kanam gi nga xooloon ne ko yow laa bëgg sëyal kanam gi nga xooloon ne ko yow laa bëgg nga jural ma samay doom waaw ndax kanam googu ëllëg ak ci biir da ngeen war a mën a waxante wax ju ñagas rek nga yëkkati kurpañ wala nga yëkkati wax ju ñaaw wala nga bonal xolam mhm. jigéen la daa xaw a néew doole waaye jigéen ñi it léeg-léeg nañuy waddu seeni làmmiñ jëkkër sang la jëkkër dañ koy olmaal doom yi ci yéen la ñuy roy doom yi bu nu jàkkaar loog yéen ngeen di jëflante lu ñaaw ñoom dañuy jàpp ne looloo baax di mhm. bu ñu génnee ci mbedd mi loolu la ñuy def kon yow kon yow tey euh, suma déggee li nga wax bu baax pare nga tey état solo woon euh, nga gérer lii ñu naan euh, la mendicité la lutte contre la mendicité kon yow mën nga représenter man mën nga doon leader leader pour lutter la. l' état l' état d' abord c' est nous. Mhm. Mhm. te xaaruma ci état. tàmbali naa ci ba may woy inceste mhm. mooy sama premier album sama premier engagement album boobu laa woy bataaxal di waxal xale yi un chanteur c'est un ambassadeur et de manière continuelle ca loolee laa bëgg a wéy man état la yow état nga bu may jàppale état di bañ a xaar état tribu ah, bu may wax ci yow mel noonu muy wàññee ko tribunal daañuy wàññeeku moom it la ñuy atte ci xeexu ñaawteef yooyu gendarmerie daañu wàññeeku la ñuy atte ci loolu kon man maay état waaw ñu ngi toll si njeexantalu émission bi euh, ba tax na dafa am euh, question boo xam ne euh, saa su nekk moom lay laaj sama sama ndaanaan yëpp ah muy kan moo lay bindal say woy ak sa projet exactement fan la toll. da nga laaj sànq lu am solo ci staff. man Malick Gabou ku am kilifa la am kilifa waral li ñuy tënk staff a koy tënk man duma ko tënk. dimanche bu jot day dinaa la invité suñu benn réunion dimanche. démb ci mujj dimanche bu jot ñu ngi ci kër gi. di ko waxtaanee di ko saytu du lu ñun du lu ma neex def. et d'ailleurs samedi 3 bi Blue Sax invité naa leen parce que dina am beneen lu fa feeñ. muy le label Malick MDS Music Academy label boo xamante léegi bis ni ki tey Malick Diabou. ca label boobu fa la sukkandiku te di ngeen fa gis ay mbir yu bees tàq Malick Diabou Seck léegi lu mu nar a solati label booboo koy solal te volet yëpp a ci nag xeetu dimbalante ña ngay waajal dellu ndar ca la ma doon wax léegi ca wàllum dellu ndar ba maa ngay waajal dellu ndar ci kàttanu yàlla ngir benn école bu élémentaire boo xamante ni man lañ def seen pare man Malick Diabou Seck mii la ñu def seen parrain ma fas yéene dem mur bu xoosu dinaa ko peinture banc bu damm dinaa ko daajaat banc bu manqué dinaa ko fa remplacer euh, euh, ardoise bu manqué dinaa ko jën fas yéene ci ànd ak yéen sénégalais yi fas yéene ci ànd ak yéen Saint-Louisiens yi ñoom ràññee nañ ne seen doom ji liggéeyu rek pour dugal ci poosam ndax sama éducation wu doom yooyu ca toog ca banc ba ca école ba lu ma soxal la lu ma ñor la ma fas yéene fa dem au mois de juin ci kàttanu yàlla dem ak la am ak ñama am na ñëpp ñëw jàpp ci ñu fas yéene dem xale yooyu ñooy doon magu ëllëg vraiment Saint-Louis nag laa koy defi jiwaate <laughs> dañ ciy ànd ak yow bu baax a baax incha allah Dakar midi bien sûr dinaa ci ànd ak yéen Dakar midi dinaa ci ànd ak yéen te dinaa ci ànd ak presse bi dootuma def ci àdduna loo xamante ne presse en ligne bi man yéen laa jagleel sama bopp mais sa musique yi exactement kan moo la koy bindal yaa koy bindal sa bopp euh, wala dafa am ñoo xam ne spécial ñoom ñooy bind musique yi di la jox ngay woy non maanaam man je suis très ouvert en matière man nee naa la musique culture de manière générale donner la ak recevoir comprendre nga damay bind bind bind bind léegi boo ma indilee ma liir mu baax ma jël boole ci waaye nag wax dëgg yàlla bari na lool lu may bindal sama bopp mais nag nee naa la musique da ngay indi Anta Ndiaye indi Demba Khoule indi mu indi ñu dajale mu neex ñi koy jëriñoo vraiment bëgg nga may ma tuuti seen tàgg parce que dafa am ñoo xam ne tey jii ñu ngi leen di suivre bu baax ku ci mel ni euh, Matar Seck ñu ngi koy nuyu au passage yéen dafa bëgg nga taggal ko ay maamam parce que gis nañ ne yow maanaam yow bokkoo sax si yooyu noonu doo tàggaatee pourquoi. dama bëgg na tey nag nga may waa giiti law be latisaar mi mbay mbend latisaar latisaar kuma mangaas maa ngi nii man sama maam faat ñang faat joom kuraay sama maam ni yewaay ndar ndar baa noonu yewaay doom yi ri ma laa noonu mataw yi sama baay fato yi sama yaay moodu gi jën sawa sakoore zamam wëlimataay zamam ni malik jabo ndar ndar baa ngi ni mandi maay magiyat xaana rakibay camiñal nay ngooni mu ñi malik bayu bete bete baa ngi noonu yowaay maam bamba xanaa du jabu seg la Élysée sama bàjjen moo fi yoyo mari vayama magamu vayama mari vayama bamba nuyul ma waa Dakar mi dee. Malick Gabon gi. macha allah Malick euh, kan moo nekk sa bàjjan. acca bu sekk la Saint-Louisien kenn dootu ko laajte ndaanaan lu mag li. donc bëgg nga wax ma ci kooku tuuti rek. jabu sekk la Saint-Louisien moo bokk ak moto sekk di sama baay ndey ak baay moo bokk ak Sidi bu sekk ma ca France ndey ak baay bokk ak ngim si yàlla ji El Hadj Badara sekk ma jiitu yàlla na ko yàlla yërëm ndey ak baay bokk ak ngim si yàlla ji El Hadj sekk ma jiitu. ndey ak baay jabu Seck la Saint-Louisienne di bàjjen ci sooda bu sa Seck ndaanaan lu mag li jabu Seck la Saint-Louisienne Abdou Guité Seck mooy baayam bu mag jabu Seck la Saint-Louisienne Fat Ñang Fat Diop Koura mooy yaayam jabu Seck la Saint-Louisienne na dëkk sanc ba ca digg ndar fa taq ak géej gi kër doxul ci digganteem ak géej gi ci rue Malenfant kookoy jabu Seck la Saint-Louisienne kookoy ndar ndar bu mag bi kookoo nekk ci suuf di ñu yëkkati di ñu teral moo tax ku ci jóg bala ñuy xippi bala ñuy wax dara sargal ko. kooku lañ may dàkkantelee mu saf ma lool koo koy jabu seeg la sénégal waaw li nga jota def nii léegi gis nañ ni macha allah waaw doomu géwal mooy def loolu ndaanaan dëgg mooy def loolu te say woy gisuñu si loolu lu tax yow dooy taggee si say woy yu bari bari nee ma nóoree nii way naa ko mm-hmm. ah waaw nóoree damay wax fa mu bokk moo jur kan kan moo ko jur ah kii la bokkal moo jur kii macha allah cest euh, ba ci lépp loo foogee ne new fi suñu borom may nañu ci ndax tàggat nañ ci suñu bopp waaye dafa di lépp loo gis ca musique war na ca mën a ne mais de manière modérée ak fa mu war a dugg sabar gi ñuy wax mm-hmm. rëkk tama gi daa dañ koy tàngal ba mu saf-saf waaye ak fa mu war a duggee ak fam na tey ma jox la exemple bari na fi ay structure yoo xamante ni je pense cité bon ñu ngi fii ci dëkk bi waruma fa jouer mbalax mhm. acoustique kese laa fay jouer lu mel ni alchimia par exemple hein acoustique laa fay jouer et pourtant bulu saxo gi war pentola gii mais boo fa ñëwee leneen ak leneen lañ fay def tu vois donc boo ñu fekkee it fa ñu ne xam ne dañuy dugg ci maam yi bu baax et loolu Sénégal la ñu nekk fii Sénégal loolu ci suñu culture la bokk mhm. ñu xamal nit ki fa mu bokk xamal ko mooy kan rendi budul paaka boobu ngay wax maa ngi ci sargal sama yaay ju baax Mimi Samb bokk ak euh, Jules Samb borom auto école la planète wax ko fa mu jóge fa mu cosaanoo dama ciy dem ba mu neex dama ci dem ba mu neex waaye nag loolu li nga xamante ne mooy régir ay euh, musique pour man ce n'est pas ça kii est le plus important lépp importance mooy nañuy waxtaan ñu jëlee ci njariñ tënkuñu nag kenn tënkuñu ñu ba nga xamante ne dañu war a rester ci bi kanam ndax dañoo am amuñu bulletin de salaire mm. ay nit ñu baax la ñu yor te nit ñu baax ñi nag ku la defal lu baax nga wal ko lu baax. maanaam da nga am say giir. <coughs> waaw waaw waaw waaw ah, ñun amuñu bulletin de salaire ceeb bi ceebu ngelaw tuuti du nin de boo foog nga ko der ca kaw kay léeg-léeg samedi soir sax ma toog wéet nii rek taal coq am fu ma dugg rek. seeti gars yi ah maa la lool te samay gars yi dañoo soxor ci man de. dañoo soxor ci man dañ may defal bagage ba mu neex. lii mi di di jëflante lu baax Sénégal lan dañuy géwal mais réew mi <laughs> la ko sama benn xarit di waxee El Hadj Moustapha Rasoul ma koy nuyu de passage ndeysaan ah fu ma tourné mu ne ma sekk lii réew mi ma ne ko billaay lii réew mi nañu waxalante lu baax rek Sénégal jëm kanam no stress mais nag nañu xam fi koy teg daal voilà voilà nañu ko def de manière modérée ndax nekk géwal tekkiwul doonam baadoo loolu daal am na solo daal. waaw ba tey euh, ci maison de production yi si laay ñëw nii ba que gis nañ ni maison de production yi nekk Sénégal bari nañ trop Dakar yow yaay produire sa bopp wala yow yaa ngi ànd ak ñoom liggéey bi MDS Music Academy jàpp ko MDS Music Academy mooy produire Malick Diabo moo lay produire d' accord est ce que yow tey jii pare nga woon beneen beneen maison de production tey ji su la woon Malick Diabo Seck pour jël ko en charge nan lay demee wax naa la bii mooy troisième fois Mame Bamba mhm. ne la musique mhm. jox ma la dem ba joxe Anta Ndiaye joxe ma indi ñu daju dajaloo. Malick Diabou Seck dafa ibbeekoog ñëpp. yow mii boo ma noon kaay ñu liggéey ma produit la man la yan condition la ñu ne li man la kaay ñu dem ba pare terewul yëkkati sama doole di la ko ci doole waale. c'est comme ça que je vis moi avec la musique tëjuwuma en fait. Mm-hmm. tëjuwuma dama ibbeeku di jël suggestion ne naa la ba ci soppe bi ci gën a tuuti ci ay at sax su ma bindee dinaa ko déglu dinaa ko tontu ñu waxtaan. ba tax na sa dernier mot. voilà di leen sant nag très sincèrement on a fait une émission boo xamante ni vraiment neex na ma trop. neex na ma trop te rëccu naa euh, li tax ñu yéex koo def nag sincèrement parce que li ma gën a li ma gën li ma njëkk retenir mooy Dakar Midi ay jeunes fa daje ay xale yoo xamante ne macha allah c'est la même génération euh, ku leen xool xam ni bëgg-bëgg bi mi ngi fi euh, fulla bi mi ngi fi fayda bi mi ngi fi te loolu na ci yéen laa yéene mu ne ci mani sama domaine. bëgg-bëgg gi fulla gi fayda gi ni ngeen ko doxalee sincèrement sama xol sedd na di nuyu internet yëpp a travers yéen Dakar Midi di nuyu soppe yi jabu Diabou Seck yëpp di leen jox rendez bu ci facette bu mu ci mënti doon live yi tàmbali na ñibbisi nañ Ndakaaru ñi ngi woon Ndar ñibbisi nañ Ndakaaru Bulo Saxo samedi incha allah rabi lu bees tàq nag lu war a génn ñaari single yoo xamante ni moom vraiment dañ koy kaani ba mu neex mi ngi ñëw mi ngi ñëw incha allah rabi nañ ko xaar euh, tëgg nañ ko ba noppi yam war a àndal maanaam wàllum xom bi lañu nekk di travailler ngir jox leen euh, Malick Diabo ngi dem bitim réew fas yéene liggéeyal réew mi fas yéene dellu di sàkku ñaan rek ñu ñaanal ñu bu baax a baax a baax. donc l' émission tire à sa fin donc ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax ci kóolute bi nga am ak Dakar Midi TV tey ma dalaloon Malick Diabou Seck donc ñu ngi leen di jox rendez-vous ci beneen daanaan yow mi mit di ma seetaan daanaan international xaar ma te la fekk si merci beaucoup. నీగి నా